kooku korona bul mani kokkan la xam nga ma man la Moustapha Cissé Lo yow korona ñëw naa Touba wut ay antu serek lu ne joxe ko ci jumaa jeeg police ak mairie bi fu ne ma joxe fa ay antu fexe ba nga génn Touba nga dégg ni maa ngi dakaar nga duggaat Touba barke alquran man sa dama ne woon bi duma ci dugg waaye danaa ci dugg yow corona lan la la jël nit ñi witt kenn xamatul fu jëm sofër saa ngi nii taxaw lépp taxaw tailleur yi ñëwatuñu kenn doxatul nga dinu bëgg rey corona barke xaadimul xaddim xam nga ma xam nga ma jaar naa fekk abola ñaari fan laa ko songo mu ne peut génn réew mi nga dinu bëgg a fatt corona mani man li ma bëgg mooy nga génn réew mi may nit ñi jàmm sonn nan suñ njaboot gi sonn nan fatt nga nu corona xam naa la bu baax siin ga nga jóge danga fa doon uus ay bureet bul ma kobas bul ma kobas ah nga dinu bëgg a rey duma la wax dara bés bu nu dajee nga xam ne man duma sa morom lu wér laa lay wax baax na ba ba ma ni ba baneen yoon danan daje dana daje man lu man du ma def man may taaliba sëñ Touba taaliba sëñ Touba la amut lu may deltu ci ginnaaw man corona xam nga ma xam nga ma bu baax.